ñi nga xamante ni tàmm nañoo tukki dañu ko daan dañu ko daan gis fu nekk ci àdduna bi di dem France États-Unis Dubaï fu nekk di ko gis EDK e nag indi service bu mel nii tas ko ci réew mi tey ñu indi ko Touba waaw muy service boo xamante ni vraiment service de qualité la waaw ñu moom la ñu indil waa Touba. waaw di di di kontaan si si ñoom parce que ay ay jeunes yu dynamique lañ. yoo xamante ni vraiment liggéey rek moo leen ñor ndax xam nga EDK day day yëngu day yëngu si liggéey noo xamante ni maanaam ku ku farlu si liggéey rek la mun a àndal waaw moo tax ay jeunes yu dynamique la ñu àndal yoo xamante ni bëgg nañu liggéey bi trop waaw di kontaan trop si ñoom wax dëgg yàlla. waaw ñu si ëpp nag ndaw dëkk bi lañ mais jël nañ leen fii bien avant ñuy ibbi ñu yóbbu leen Dakar fii lañ leen jëlee yóbbu leen Dakar ñu former leen foofu former leen tàggat leen si liggéey bi ni muy doxee. ak ni ñu bëgg liggéey bi doxee former leen si jox leen xam-xam bi war a mën a tax ñu mën a yor liggéey bi tey bi ñuy ibbi ñu delloo si waat leen fii ci biir Touba waaw noonu la liggéey ak ñoom. waaw ñun EDK euh, e moom euh, créer emploi ci lay yëngu ndax tey boo gisee période Covid bi sax restaurant yu mag yu bëri ci àdduna bi ñu ngi ñu ngi tëj ñii di wàññi seen seen personnel EDK Jolof kën mi ngi kon di recruter. kon EDK moom day yëngu si créer emploi ba tax na ni ñuy jëlee fii nii ñi ñu jël Touba noonu la ñu continuer di jël ndax recrutement yi arrêté wuñu ndax Jolof Chicken loo xamante ni la day continuer déjà semaine bii ñuy dugg am na beneen bu ñu ibbi semaine bi ci topp am na beneen maanaam noonu la ñu koy doxalee moo tax recrutement yi taxawul dañuy continuer di recruter waaw dañuy continuer di recruter te ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal nag comme li nga wa sànq fii huit heures la ñuy liggéey huit de temps la ñuy liggéey ñi nga xamante ni xëy nañu huit heures seize heures dañuy wàcc ñibbi ñi nga xamante ni gon nañu seize heures zéro heure dañuy ñibbi huit heures temps la ñuy liggéey parce que euh, ki nga xamante ni moom mooy boroom kër gi dafa dafa fonk trop àq ak yelleefu doomu aadama ba nga xamante ni euh, lépp loo xamante ni euh, àq ak yelleefu doomu aadama la da koy respecté moom moo waral du du teg kenn loo xamante ni lu lu lu ëpp lu mu war a def la ba tax na fu mu war a def cinq personnes pour ñu liggéey def cinq personnes pour ñu liggéey maanaam bokkul si ñi nga xamante ni dañuy gis foo xamante ni dafa war a am cinq personnes yu war a liggéey mu def fa ñaar ñuy def liggéeyu cinq personnes moom gëmul lool maanaam day émerger li nga xamante ni moom mooy euh, liggéeyu ndaw ñi ba tax na loolu la ciy def saa su ne moo waral EDK liggéey bi dañ ci tool fu nga xamante ni ku si nekk heure bi nga war a liggéey moom ngay liggéey waaw waaw waaw dañ koy bàyyi xel bu baax ndaxte xam nga euh, comme li ma wax sànq ñun si li ñuy yëngu mooy clients yi mooy suñu priorité EDK clients yi mooy suñu priorité Jolof Chicken clients yi mooy suñu priorité waaw le client nit ñi dañu koy wax ñun dañu koy jëf maanaam dañu koy jëf jëfin woo xamante ni ku ci nekk dañuy fexe euh, boo boo boo amee woon xool bu naqari feneen sax boo duggee EDK wala Jolof kën balaa ngay génn nga am lu la neex maanaam si loolu la ñuy yëngu fexe ba client bi bu ñëwee Jolof Chicken non seulement dina lekk lu neex mais dina fi trouver service bu agréable boo xamante ni dina tax moom mu sawara dellu si waat loolu nag ci la ñuy tàggat ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal ba ba nga xamante ni client bu ñu mënti recevoir dinañu ko traité traitement boo xamante ni moom dina jàpp ni moom ka fi mu ñëw kat def nañ ko buur vraiment loolu moom mooy suñu priorité affaire bi fii la. waaw Touba moom vraiment euh, mention spéciale waaw ndaxte dëkk bu sell la boo xamante ni euh, yàgg nañoo laaj jolof ci kën tey indi nañ leen jolof ci kën indi leen qualité bu qualité boo xamante ni nag macha allah ndaxte xam nga jolof ci kën yemul ci defar ay ginaar kese nit ñi suñ déggee jolof ci kën dañuy foog ni ginaar kese la yemuñu si ginaar kese jolof ci kën day def ay crevette jolof ci kën day def ay poisson dañuy def ay filet de poisson dañuy def ay ay ay burger fish mooy burger poisson xam nga en plus dañuy dañuy def aussi fast food dañuy def hamburger shawarma sandwich pizza waaw yooyu yëpp dañu koy def waaw. Mhm. Jolof Chicken moom bëri ay variété ah. waaw pour l'instant pour l'instant moom ñu ngi yëngu ci ci wàllum ginaar bi crevette poisson ah ak wàllu fast food bi waaw mais nag Jolof Chicken loo xamante ni la lu ubbeeku la. saa su ne rek ñu ngi xool li neex clients yi ñu ko yokk si liggéey bi waaw ba tax na mbégte clients yi daal mooy suñu priorité waaw. Mhm. waaw sama kàddu gu mujj di di di kontaan bu baax ñëw ci dëkk bu sell bi dëkk bi nga xamante ni vraiment ñun suñu suñu fierté la suñu mbégte la léegi nag di woo waa Touba yëpp di leen xamal ni leen seen Jolof Chicken a ngi noonu ñoom ñoo ko moom ndax Jolof kën c'est produit sénégalais pour les sénégalais ndax lu nit ñi daan euh, gis am na ñoo xam ne tele lañ ko daan seetaan am na ñoo xamante ni buñ tukkiwaan lañ ko daan jënd tey non seulement ñu indi ko Sénégal mais indi ko fii biir Touba nga xamante ni euh, euh, société yu bari yu tubaab yi bu ñu ñëwee indi fii dara maanaam Dakar rek lay yem Jolof ci kën nag ñu indi ko fii biir Touba di wax waa Touba ah kontaan nañ ñun si ñëw bi ñu ñëw fii waaw di leen xamal ni leen ah